mën ko boole ci dialogue national bi pour essayer trouver si euh, consensus fort tout à l'heure Abdoulaye Mbow mu ngi koy wax ay waxu euh, deal wala partage de gâteau amaana tontu nga lu tax tey jii yéen euh, ngeen teew ci ci ci ci dialogue national bi écarté nga thèse yooyu mais dafa am leneen lu des ñu ngi wax aussi waxu gouvernement élargi ñu jàpp ne tey tey jii su ngeen bokkee ci dialogue national bi ba ñu trouver ay consensus fort dañu ne ku participer élaborer benn politique dina participer ci ci euh, euh, mise en euh, boobu alors tey jii mise en mise œuvre bi excusez-moi alors tey jii ñu jàpp ni que est-ce que suñu leen woowoon pour ngeen bokk ci gouvernement bi di ngeen di ngeen ko def <laughs> waaw boobu laaj nag moom waajaloon naa ko sax yàlla xam na may ñëw ndax 1991 <coughs> Abdou Diouf dafa dugal PIT ak PDS ci gouvernement ñun ñi woowoon nañ ca waaye demunu 1993 euh, ligue démocratique dugg ca waaye ñun demuñu woon 1995 Ablaye duggaat ci booba nag ñu ñu ngi àndoon ak Ablaye ci benn coalition mais pendant ñaari at daal semaine bu ne ñu ne ànd jof day dugg ci gouvernement saañ ko waxee nga weddi waaye saa yoo weddee ñu ne ah kon no gis nga ni mu weddee kon nag wane na ne dañuy dugg <laughs> am na lu xew <laughs> am na ko am na lu xew <laughs> alors loolu mel na ni moo jàpp Macky Sall duma def lu ëpp deux mandats consécutifs mm-hmm. ñu ne ah ni mu ko waxee daal kii wut toog ba ak ne non mais boobaak léegi waxu ci fan yii mu ne waaw mais bu ngeen gisee waxuma ci day bu ma nee nii ñu ne nii bu ma nee ñu ne ah kon nag mu ngoog waaw fii mu ne nii nee nañu dialogue bi kat dafa war a déboucher ci gouvernement d'union nationale alors ñu laaj ma man ndax damay bokk ci ab gouvernement d'union nationale xam ngay boobu laaj itam dafa dafa xaw a yéeme yow yow li ngay lijjanti sottiwut man li ma bëgg mooy ñu am ay règles consensuelles de dévolution démocratique et pacifique du pouvoir maanaam sart ak ponk yoo xam ne ci lañuy sukkandiku ba wote jotee réew mi du dugg ci musiba d'accord léegi nag gouvernement d'union nationale mais kooku franchement man mënuma cee wax parce que ah, non mënuma cee wax parce que Macky Sall dañu ne moo gagné mais na gouverner opposition bi opposé. mais mais kon su leen woowoon tey jii pour ngeen bokk. ci mais non quand même pourquoi pourquoi pourquoi pourquoi may bokk ci gouvernement pourquoi. pourquoi man lii mën a tax ma bokk ci gouvernement mm-hmm. ñaanuma ko yàlla mooy réew mi nekk en guerre. Mm-hmm. jàppal bàyyil nga xam ne kenn xamut foo jëm ñu soxla ñépp oui bu boobaa effectivement mën naa cee bokk joxe sama xalaat mais ñaanuma réew mi toll foofu li ma bëgg mooy réew mi nekk ci dal moom mu gouvernement ñu opposé bu ñu demee ci élection franchement ku gagné ci élection yi normal ñu xam ne yaa gagné alors professeur. Euh, euh, wala wala nan la si kan la ñu dem sax. <laughs> dafa mel ni si Cheikh Oumar la wala si professeur waaw mais damay ñëw si si professeur Sanoussi Ba <coughs> parce que wa Mounirou wax na ko euh, honorable wax na ko sànq nee na laajte na ko donc yow damay jàpp ni professeur moo fi toog pédagogue bi. Mhm. sànq ba léegi ñu ngi wax. dama ne damay jàpp ni professeur mu fi toog muy pédagogue bi mhm. sànq ba léegi ñu ngi wax ci transformation maanaam mentale justement des Sénégalais sànq professeur euh, Mounirou mi ngi koy wax euh, naka la ñuy fexe ba nga xam ne du ñu jéggaane li nga xam ne ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy bay lu mel ni si dugub lu mel ni ñebbe lu mel ni leneen ak leneen ba tax Sénégal koom-koomam dina gën a mën a suux euh, dafa am benn borom xam-xam bu mës a bind ab téere ne jamonoy Thomas Sankara le Burkina était le seul pays où l'on ne jamais de mendiants donc mu mel ni kon boog moom il était arrivé duggal si bopp burkinabé yi ni effectivement il faut consommer local savoir consommer local donc est-ce que jàppoon ni si wàllu dialogue bi issue bi gën a am solo mooy bu ñu tënkee ab téere naka la ñuy mën a fexee ba nga xam ne sénégalais bi ci boppam par rapport à son comportement de tous les jours par rapport à sa perception du sous-développement ou du développement ou de l'émergence dina gën a mën a soppeeku ba nga xam ne dañu sentir benn engagement citoyen un engagement patriotique pour àndandoo tabax li nga xam ne moo di suñu réew waaw xam nga Abdallah les poissons pourrissent par les têtes xam nga Thomas Sankara bi mu bëggee burkinabé yi mel nañu mel moom daf ko commencé ci boppam jël coton dëkk ba def ko yére sol ko yore veloom am oto bu ndaw mais comment voulez-vous que le nga ne ko yow consommer local ci lu muy dugal ci biiram wala ci këram alors que gis na yow contraire bi ngay def loolu du jàll on éduque par l'exemple dans un système c'est la science. taal si laaxee bas ak lalal de. ah ma ne taal ah, si laaxee bas ak lalal. mën naa yokk foofu benn ma dugal foofu li mu wax c'est tellement important xam nga boobaak léegi nu ngi wax ne mbir mi ci bopp yi la. Euh, benn waay daf ma ne boo jëloon sénégalais yóbbu leen Amérique. jël américain yi indi fii. nga may leen cinq ans. fee dinañ ko màbbal fii ñu yëkkati kon fii la ci bopp la chinois yi mhm. booba étudiant la chinois yi amoon ab coopération gars yi ñëw fii ay 74 côté yooyu mu am dëkk bu am paanu forage population yi toog ay fan naanuñu chinois yi dem fa pour di ko defar bi ñu ñëwee ci village bi population yi teeru leen jox leen coca cola chinois yi ne mukk mukk mukk mënuñu fee ñëw di naan coca cola bu sedd guy te ñii ñetti fan a ngi nii wàllu ko ëpp ñoom naan gisuñu ndox mu ñu naan voilà chinois ne duñu naan c'est ça dañ leen a toppa toppa topp ba ne leen ci sunu baax maanaam ci sunu culture su ngeen ko defut dangeen di gàcceel dëkk bi ndax teraanga la ñu ne mos teg fee ba ñu fa jógee ñëw c'était dans la région de Diourbel ñu ñëw Diourbel guddi jot ñu naan waggaay ne waaw fii day hôtel kii nangam na ñu ne est-ce que am ngeen salle bu hmm. yaatu rek boo xam ne mën nañ faa teg matelas wala hmm. basak bi hmm. loolu mooy tarbiya sunu melut noonu du ñu dem wax na ko ceeb ak la ca des gerte sax dañ ko fee dugal. jabet sànq mi ngi wax léegi PME Sénégal téeméeri entreprise yoo jël juróom-ñeent fukk ba ak juróom-ñett ay PME la maanaam digg doomu wala tuuti ñooñu soo leen jëlee téeméer bu ne juróom-ñett fukk ba ak benn ay nit la yor seen i këyit rek di dugg di dem ak dikk daaw joxe nañu huit cent milliards ci marché public. amuñu ci lu ëpp vingt cinq pour cent sénégalais yi parce que am mënuñoo am ay compte ci banque yi di am ay ñu di leen lebal ñuy soumissionné ci marché yi pour di gagner donc mënuñoo am accès au marché public waaw loolu nooy amee <laughs> xam nga affaire bi soxlawul am xam-xam daanaka respecté naa nag xam-xam loolu waa jile mm-hmm. waaye nag dafa simple daal laa bëgg a wax mm-hmm. cest à mënuñoo war a mën a dugal ci boppi nit ñi ne yoon wii ñu jaar suñu ko jàddul développement dina dina ci am mënta ne xam nga xam nga exemple bi ma lay jox eh, dafa am eh, boulangerie bu nekk suñ koñ dafay jaay pain nebedaay te xam nga déjà nebedaay sama jaay dafay wax mu ne Sénégalais yi dinañ dee ndax njabet ñoom ñëpp parce que duñ lekk mbuum xaw ma yow nee na Aïcha di nga toggal sa jëkkër cere mbuum wala de cere mbuum mhm. ma ñëw fa jënd ko benn yoon mais dama ko fay fekk muy bëri bi ma ko laajee mu ne ma Sénégal yi duñ jënd mburu bi am na ñoo xam ne buñ koy jënd sax nit ñi dañ leen di saboté di wax mburu nebedaay mooy lan allahu akbar xam nga loolu pour mu mun a am mbaw dafa am lu mu laaj le verbe oser alors que nos dirigeants ils n'osent pas le changement parce que suñu wootee changement bi ñoom seen bopp il faut ñu changer seen habitude alimentaire changer seen habitude vestimentaire te ils ne sont pas prêts à quitter leur bureau leur costume et leur avion Thomas Sankara bi ngay wax mais mosul am avion privé non bi euh, waa ji ko daale man dama ko bumu sax jàpp turam waaw kooku daal jabaram bi mu ñëwee nga xam ne surtout bongo la six millions lay dépensé par jour mais bi mu ñëwee lu mu njëkk a exigé mooy avion tubaab bi ñëw installé mu indi li mu indi donc changement de mentalité dafay commencé ñi nga xam ne nii moom moo jiitu te ces gens là ils ne sont te gis nga tant que les gens ne sont pas prêts wax ji mooy bëri rek mais du ñu dem fenn. mu ne Ruud da naan ataaya. Nouveau marié. <laughs> <laughs> waaw heure ménage. merci. on parle de heure ménage. du am suukar du ma ko kii. oh am na fi nag dañuy prévoir. nu balaa lépp am na fi. Ah, voilà ah, ah. am naa pour diabétique yi. Eh. ah si am na fi. wuyu ma. dialogue national bi léegi. waxal sa ceetal bi indemnité de mariage loolu la ñu transport dañuy laaj. kon nag yéen yooyu yëpp ngeen dem dialogue national. <laughs> ndax day day na xam nga gars yi laaj ay kii. indemnité transport. Zem waxal si mariage bi. nuyu sa jabar nga wax ci dumbelance bi. maa ngi di nuyu ak madame Sansi madame Ba. du nuyu monsieur Thiam ak ñëpp. wala ñëw sama 10 000 ah ñëwal ak madame lan Mbow. ak madame. Diallo ak madame Talla. madame célibataire. dam day situation économique bu pays bi fu mu toll. loolu nag soxla sax ngay wëri di feneen. boo xoolee jàmbat bu askan bi di jàmbat rek nga xam ne situation économique fu mu toll. man damay laaj ci est-ce que sénégalais yii ñoo faloon président bi fi nekk ndaxte élection yi boobu ba léegi ñoo ngi lan di ñaxtu si courant bu seer ak essence bu seer. ñoo ko fal de. ah man damay laajte. <laughs> kees état bi daa mel ni dara nekku fi nag nee hmm. wala bu fi dara nekkee bëriwul. ndax xam nga ni ñii je pense que ne dañu doon nëbba askan bi situation dëkk bi fu mu toll moo taxit loolu gis bu élection yi passé nit ñëpp sàpp sàpp si ñun réew mi foo laal gaa yaa ngi ñàkk enseignant yaa ngi xuldu jàngalekat yi di xuldu docteur yi di xuldu joor national bi nag waa ji daal nekk ba mu gañe élection yi mu door a woote juboo moom man loolu damaa yéeg parce que moom moo taxaw ni ñëpp moom la ñu àndal nii de cinquante huit pour cent la lu muy wër di ko mu jubóo moom duñ fal na gouverner dëkk bi mi si dal na gouverner moo gën mi perte temps am si dialogue national bi te nee loo xamul mbaw. dialogue national bi gisoo fi benn ponkal. gisoo si Idriss Seck waa PDS gisoo fi Sonko. da nga xeeb honorable. dem <laughs> ah. ah man di suma ponkal yi. ah te nag gis nga honorable. yaa ngi tooñ de. gis nga diop national bi. Hmm? day indi ay problème rek day yegg galoo yenn jukko yi lay indi rek. day wane yenn jukko politiciens parce que politiciens yu bëri. Hmm. gëmuñu lenn lu dul seen intérêt xam nañu carrément dañuy partage bàyyi foofu di ñëw pour jël seen wàll. Hmm. te ñooñu ñoom di ñëw nee na mënu sax daje mbooloo. boo leen woowoon téeméer gi sax fi indi. tey bu ñu leen dara ci réew mi seen intérêt bopp. Zem. merci Zem.